sunu boroom di delloo nit ñi si yàlla mooy soobaat na nit ñi wax leen nañu jaamu ji yàlla bu baax a baax te jaamu yàlla la si ëpp mooy ñu jàng suñuy farata ak suñuy sunna waaye ñu bàyyi xel yàlla sunu borom subhanahu wa taala bu baax a baax ne moo na fi wàccee te lim na fi wàccee itam mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun mooy nu jaamu ko ci jaamu noo xam ne jaamu rafet la waaye tënk na ko moom sëriñ bi mu tënk ko ci li nga xamante ne moo di ak bennoo waaye li nga xamante ne itam moom la ci sëriñ bi delloowaat mooy fi mu nekk ak mu tàmbalee dafa wax ne moom de naka jekk mësuta tal dara mësuta tal lenn lu may jëmi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom rek la mas a tal moom rek la mas a gis moom rek la mas di topp loolu war nañ see déggante nun ñëpp ne geewàll wàlla sunu borom la ak wooree ak natt loolu yàlla ko sant ñu bokk ko ak ñëpp waaye li nga xamante ne moom saa buñ ci jubloo nag nun képp noo koy bokk mooy kennal sëriñ Tuubaa te bennal sëriñ Tuubaa te topp sëriñ Tuubaa te ni topp sëriñ Tuubaa itam moo di jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem dem ci li nga xamante ne moom la ko ay kilifaam daan jëfee wax na itam loo xamante ne am njëriñ la mooy diirib li mu fi nekk moom topp na ay kilifaam ci li nga xamante moo di ay ndigal bàyyi na li nga xamante moo di ay tereem ba nga xamante ne yàlla suñu borom ko ay kilifaam topp ko ci itam moom sëñ moom moom Muntaxa Muntaxa itam wane na ne li nga moo fi nekk moo di ak jaayante lu waay jënd lu nekk yaa moom kon mbiram Sëriñ Tuubaa dañ koy jaay dañuy ak Pastef feddliwaat laxasaay yi yeesalaat laxasaay mu mel ne boo xëyee nañ fedd laxasaay yi yeesalaat laxasaay yi da ngay dem jëndiwaat beneen centre wala beneen der boo xëy ne bokkut ak der ba nga dafa wax ne yeesalaat pas-pas yi yu ubbiwaat xol yi leeralaat xol toppaat seen Tuubaa gën koo kennal te bañ ko boole ak dara jàngat nañ ko si li nga xamante ne mooy discours Cheikh Mamadou Mountakha jàngat nañ sam ak benn ak ak toftale ak ak ànd loolu itam moom la yam sampaatoon ya nga ko kenn ngir jëm Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne ñoori taalibe ñu topp seen i kilifa te bañ leen a boole ak dara loolu itam jàngat nañ ko si li nga xamante ne mooy mbiram Sëriñ Mamadu Muntaxa Cheikh Mamadu Muntaxa jàngat nañ si itam li nga xam ne moom la Sëriñ Bassirou Mbacké wax mooy koo xamante ne nekkul koo xam ne day toog xalifa xam yoon yu mu nekk tey li si yokk mooy rek mooy xilaafa mooy xalifaab Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf fi mu lu mu mën a doon Sëriñ Muntaxa Bassir cooco la nekkan ba xalika fekk ko si kon loolu lañ ci jàngat ci awee li nga xamante moom la Sëriñ Muntaxa jàllale bismillah rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di am mbégte lool nag ci jotaayu tay bi di ñaanal eh, Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou xalif général des Mourides sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ñaanal magam ju baax ju tedd ji nga xam ne moo fi bàyyi ko barki démb di Cheikh Sidil Muxtaar sunu borom dool li ko yërmande te taas ñu ci barkeem. ngir gàttal ñu ñëw ci euh, euh, li nga xam ne laaj ngeen ko muy lu jëm ci waxtaan wi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou euh, doon waxtaan ak mbooleem mbokki taalibe yi mbooleem yoonu murit waaye mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal lislaam ci biir réew mi waaye mbooleem àdduna bi yëpp mu mel ni nag li nga wax léegi mu jëm ci wàllum njàng mi ak njàngale mi sëriñ bi def ko jox yitte ju kawe yitte ju rëy ndax Cheikh mun taxa ku ne xam na euh, euh, taxawaayam ci wàllu jàng ak jàngale lu jiitu toogaayam bii nga xam ne toog na ko tey jotaayub sëriñ Touba daana woo ñi nga xam ne ñoo ñooy ñooy jàngalekat yi ak jàngkat yi at mu nekk am na benn bis boo xam ne dañ ko daan fekk fe ca euh, kër sëñ Basirou Daarul Minan mu daan dajeek ñoom ngir yitteel goo xam ne loolu yitteel na ko ko waaye waaye tey nag mu yeesalaat loola feddliwaat ko eh, bi nga xamee ne toog na toogaayub Serigne Touba tey jàng ak jàngale day loo xam ne moom la Serigne Touba sose yoon wi waaw bi dafa wax ne man de maa ngi doon maa ngi maa ngi jihaat ak noon ñi ci xam-xam ak ci ragal yàlla inni ujahidu bil ulumi wa bit kon bu Seex Muhammadul Muntaxa Basiru joxaatee Euh, mbir moom yi dayo bii nga xam ne jox na ko ko tey nga xam ne nee na euh, da koy wutalaat beneen ndaje loolu moom da du lu maanaam du doonul lu loo xam ne luy sedd sunu xol la tey euh, lu ñu am mbégte la ndax xam nañ ne. toogaayam mat na sëkk kon ñu ngi koy ñaanal yéene yi nga xam ne am na ko ci yoon wi yëpp mu yeggale ko tañ ànd ko moom ci barkeb Serigne Touba jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf mbokk mi ci kaddu yu rafet yooyu nga xëy ne moom la jàllale ci li nga xëy ne moom la sëñ waxaat ci diine ne dina ko jàppalaat bi sa boppam boo xamante ne daf ko bëgg a toogeewaat waxtaan ko ak jàngale yi loolu mooy diine ndax lu ma wax loolu Serigne Touba dafa xam ne alxuraan moomu yëkkati alxuraan mooy sama ndàmb am alxuraan itam mooy li nga xamante ne mooy sama gànnaay kon lu jëm ci diine ak xam-xam bu fekkente ne da leen see jëmale waxaat ne dinañ amat benn jotaay war nañoo gis ne ndaw yi ñëpp war nañoo mobiliser wu jëmaat ci jàng seen diine waaye jëmaat ci jàng li nga xam ne moo di ak taalibe loolu sëñ bi doon leeral